man man personnellement personnellement ma di koy sédel Serigne Touba di len ko sédel kessé wax deug yalla lam def metti na lol, mu n'akar mu n'akaru xol metti tu xol waye man sama dama ko dama koy ñaanal sama parce que pourquoi parce que dit xolé jëf ji ba ci bir ban importance wala ban intérêt la loolu war a am pour nit ki jëf lu mel non nit ñi delloo ci wat seen xel tuuti gis nga li amna yu xew ci suñu biir yo xamni doomu adama mo koy sabab lu jëme ko ci morom doomu adama xana xamu ni doomu adama mën naa dem ci li ñuy tudde sëriñu tariyaax ñu xaptal nguur soso ba mu def loolu ba tay boko ko fëggoon laaj ko li nga def foko tek teg day dar gémmiñam day yuuxu day lay laaj lan li def lan la parce que def na jëf ji ba noppi consciemment muy sogo a ci wat ci boppam yàlla ko sama borom djegal yàlla ko sama borom dimbalé ay mbokam buñu ko méré nañ ko soutenir nañ ko jàppale rek psychologiquement parce que ko xamanteni bi yor nga soxna ay at wala ay wèr nekk ak mom ba suñu borom may la tout tank nga wëlbati ko jëf-jëf ju melni kon ñun tamit suñu xel faawu ñu sellal ko baña a jël tort à 100% rek teg ko nañu xol koku nonu li sikk ci mom ñu jàppale ko ba lolé sama borom dimbale ko ci defal ko ci tawfiq tawfeex moy yeur man du dëgg man dama ko ñeewante billahi wallahi talahi dama ko ñeewante gis nga fi mu ne ni buñ ko bàyyi woon tëjuñu ko bu ko justice bàyyi woon tëju ko bu génnee cee ci mbedd mi moom nekkatul nit addunaam jeex na addunaam yàqu na fi sénégalais moo doon jëmm moo mel noo xamante ni bi melokaan wu doy waar la sénégalais mel la muy def ci safaan bëggut kenn xam ko waaye lu nit def ci safaan bu ko xamee foo tollu mu wax la ko wala mu di la ko xoole wala mu di la ko kobasante wala mu di ko jëwee ba nga dégg ko nag kon yooyu ay message la yu may lancé mais daal ñu xam ne violence bi bari na violence physique bi jéggi na dayo violence verbale yi moom waxaale wu ma ko ay waa ji nañu dellu si suñu xel tuuti